lek ba lek neex lek lu neex moo ci gën a neex waaw waaw ak mboro makatre kenn dootu ko présenté ci tund bi yaa bëgg a lekk lu saf te neex topp ma gaaw ma dugal la guy gi pré pharmacie des ñaay ma sàcc la ndànk dugal la mboro mak loo bëgg ci xeetu baax baax am na fa lii ci xeetu poudre cacao penton ton importé pomme de terre surgelée fromage gruyère jambon hot dog tablette chocolat am nañ aussi tàndarma pour ñu bëgg a dog seen koor cornflakes pain arabe madeleine corn bœuf sauce tomate foie de bœuf saucisson ba poulet ginaar ak nenam loo bëgg ma jaay la yow mi ci bëgg te amoo temps grawul de jokkool rek ak gérant yi Yat Ma Njaay ak Ndey Soxna nga woo bu gaaw ci numéro yi 77 975 95 10 wala 78 182 02 99 ak shahu Ramadan bu ren bi ku ndogowul Mboro Market amoo koor région de Thiès département de Tivaouane arrondissement de Mewane commune bu Mboro ak li ko wër may leen ma nopp ma ñëw ah mbokk yi DC Darou Salam confection di ay xale yu dynamique man seeni liggéey ràññeeku lool ci wàllum confection blouse yow mi bëgg fësal sa liggéey sa entreprise wala sax sa école ak ci lu mu mënti door demal seeti waa DC Darou Salam confection ñu defal la liggéey bu mucc ay Darou Salam confection defar ay blouse ay maillots ànd ak sax ay lacoste ànd ak support seul sa liggéey ci bépp support de communication ay affichage ay tenue de travail confection industrielle lu jëm ci impression ken mënu photocopie l'air en qualité yow mi bëgg créer ay logo ngir entreprise mo xam ci support bu mu mën ci doon lu ci t-shirt DC Darou Salam confection amu ci cette adresse benn la nekk ci quartier jàmm ci commune bu Mboro station Total mën nga leen ci 77 557 45 68 77 193 21 48 à terusalam Salam confection C'est une ligue de qualité De Mengo jamono communication job et frère nek ci commune Bumboro Jakarlok école Niani ah moki, yi Mboro ak liko communication job et frère ragné ko tu ci walum jaayum téléphone Walum réparation décodage yow mi soxla ay télévision télévision de dernière génération En ak qualité demal seti wa communication job et frère. lepp li nga soxlo ci xétu téléphone marque Bob, bëgg wala sax sa téléphone am ay jafe-jafe Demol ñu defal la réparation ci anam bu mucc communication job et frère yamunu ci loolu dañuy jaay ay accessoires lu ci melni ay écouteurs ay chargeurs ay batterie ufa waye tamit ay lampe led fenn rek nga ko mën a muy communication job et frère jakarlok école ñaani ci route nationale sorewul lol ak juma laser man nga jokkoo ak ci 78 522 25 82 wala ci 76 948 06 66 communication job et frère technologie bi ñepp doon wër ci Mboro ak waaw sama gars yi tey tàng na tey a tey kay waxuma la tàng mais tey jii ànd ak ci jir. waaw yow tey jii noo waajal concours a waaw concours bi xam nga ne tey jii moom. aussi yéen am nga xaw a am carte du tax nga ñu moom cent xam nga jaaxal. te yéex a ndogu moom man waxuma loolu waxuma de. cent mille tey bu fekkee man dafa ko ñëw naa ma nu ko xam jomati. yii man moom xam ne jom ni ma ko amee man nga xam ne dama entraîné ba ni tactique yi ba ma ko déggee boobu laa boobu laa commencé xiifal xam nga jaaxal xëy mi ko xoos appartement yi génnee fii xam nga jaaxal xool leen sama hémorroïde sama man ko gérer ak concours bi sama dama nga am c'est problème man xam sa bi bu koy ba concours bi sa problème ma lan waaw la wax nga bu dara rek ah

bismillahi rahmani rahim kër gaa nga kër gaa nga de kër gaa nga nga xam ne que mën nañ ñi koy jéem di jéem agsi nañ anaka agsi nañ man de fi ñu wax xam nga li may xeñam ah. ndog yi ndog yi Zeker, ik ben een mentionier. Ben ik een mentionier? Ik eh, vraag je ook aan, mentionier, gewoon mentenaar. Sorry, jij deed niet. Waarom dat ik Wat? goed ah, kon hmm. Wat? noo wat Wat? yow nou man waaw bis Wat? nekk avant koor gi damay Wat? ba ba 6 heures du matin waaw ma wat, wala wala wala ay 19 Wat? 50 ma Wat? jàll ngeen Wat? di jàll man xam naa ni koor moom taamu naa ci Wat? a ndogu Wat? sax yéex Wat? ndogu lool taamu naa yéexal yéexal na ko mel ni. salaamaaleykum. li la yàlla may xool salaamaaleykum. salaamaaleykum. da ngeen defar waay. soxna si da ngeen defar waay. yow si jàmm. ana kilifa gi. kilifa gi. moom de dafa génnoon sànq. waaw mi ngi si jàmm. waaw ñu dafa tàngoor bi. tàng na jël alhamdulilah moom tàng na moom. dafa tàng tàng na tàng na loolu waaye. naka koor gi mbaa mi ngi neex wala mi ngi na xarit. ah koor gi de mbaa yaa ngay góorgóorlu ci koor gi rek. waaw maa ngi góorgóorlu ba ci boo def benn xale yi jigéen ñi def rek. ñu naqar gi daal moom duñ ko bàyyi. waaw tàng na koor moom ci rek. ndax man gi moom maanaam dara gi. doo xam loo yàq ñu la ko yàlla jëlee man di nag ana pare man di si dégg si dégg moom dañuy bàyyi ba trois heures ñu war koy laal ah, ana xale yi. ñu ngi si jàmm waaw alhamdulilah. ana kii moom baa soriwul sëñ baa soriwul. ah moom de sànq la génn waxuma sax fan la jëm exactement. Ah, ah, ah waroon naa saabu nag. ah, ah loolu taamu nañ ko ci borom kër. maanaam sooy génn ba fàcceeb soxna da nga koy wax fii laa jëm. raw nga bàyyi soxna su baax. waaw kay. ak jamono ni mu wóor de. jamono dafa wóor de ak kilifa day tàggoo waay. day tàggoo kilifa day tàggoo. waaw kay moo ngi nii sax. ana kilifa gi. ak seen ak seen

alhamdulillah bakit ka na? Ba? Hindi. Mama, bak mo na. Bak. Đấy nó là đồ của giặc yêu đi phải cho lên nhiều phi mình cứ đi một thao đi mình đi mình ức sen fa ôi tên gà đấy ôi tên gà ở ở vị đấy đừng ức phi đồ to lên dưới to lên dưới cái đồ to phải dưới mà biết nào cũng bắt được wala daa roose ji woon ah day roose woon nga day roose woon. xale yi xale dañu mën a tiitarli. mais noonu la amee xaalis nag. ku réew la am na xaalis. daa réew nag moom. day day day bay nag. day bay day bay kan kee bay day tax maanaam yow saa mu bay bi ku fonk maanaam da nga am dara. da ngay am dara. ba tax ñu bëri gàtt. daal ñu ngi cee itteel ñu jotoon suñu ñaax bi jot. waaw loolu kay ñu itteel loolu sa ci teel suñu ñaax mu daal moom lu mu réew réew. mais yéen lan la ngeen wax nii. ok. waaw sëñ bi ngeen defaat defaat waay sëñ bi. di nga am jàmm bu wér. alhamdulilah yéen li ngeen di wax bëri na waay. maanaam mbiru àddina rek. mbiru àddina rek xam nga rek jafe-jafe ji rek. Ah, loolu la jafe-jafe ah, doy na doy na doy na merde. dégg ko la wax de tubaab la nag. tubaab la. waxam la jugee. ñàkk teg la gis mais tey jii bisum pàcc ci concours tey jii. Hmm. bis dama koy lekk moom xam na ko. lii daal ndox maa ngi nii. waa koor gi rek.

Go. I'm pompolo na kami ko ko mande mande mande. Yeah, yeah, this size ayo ayo ka kami na. Yo nak yo na. Mura tadi bila. Mande be shit be shit tala be shit. Boy tok pa jasu. Adi boy boy boy ay bisum. Tala bu. Ben berek doy. Ben kami tala bu dak tala berek man gaji be tala nam do. Tapi mau tapi mau tamu aja ini kamera. Anak, ini tidak kau ini. wala kenn ku nekk tegal ko benn place waxoon naa leen concours bi ni muy demee. kon jël ma ciy delluwaat. kenn ku mujjee dog rek. cent mille la. ok nga xam ne moom moo mujjee dog. ok ok jërëjëf dana ngeen jëf. kon ñu tàmbalee liggéey bi incha allah.